الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله أنت حنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا خيو يا قيوم أني أشهد أنك أنت الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد أسألك العفو والعافية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي di nuyu mbokk internet yi ñuy suivre yëpp di leen ziar di leen nuyu di indi njariñ ci alquran ndax yeneen saa salaam moo ne innal xuluba tasdaw kama yasdaw alxadid mu ne xol day xomaat ni weñ di xomaatee no waaye li koy dundal li tilaawatul quran wa zikrul mawt mooy fàtt jàng dee eh, sëriñ Tuubaa daan ne yaa kitaabal karimi anta xabibi wa kunta tabibi yow téere bi yàlla bi yaay sama soppe waaye yaay sama docteur daal di ne alxuraan da eh, kitaabu la kunuuzi jaaxi nee na mooy trésor am moom mooy barkeem tey li ñu indi di loo xam ne alxuraan la alxuraan mooy afdalu zikr mooy gën ki loo xam ne nit mu ngi koy tudd mu nekk aaya boo xam ne aaya la ci aaya alxuraan yi nekk suratu zaariyaat Euh, aaya 58 aaya bi ñu bëgg a joxe njëriñam foofu la nekk euh, alxuraan képp koo xam ne yaa ngi zikkar ak lu mu mënti doon mënoo zikkar mënoo tudd lu gën alxuraan ndax yonent bi saa salaam bi ñu laajee sayyidatuna Aïcha kan mooy yoon dafa ne kaana xuluxul xuraan mooy alxuraan alxuraan mooy li gën a tedd ci kaw suuf moo taxit képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo sa yéene sell sa pas-pas sell sa jikko rafet dana dem ba nga xam ne di nekk sangu ci nit ñëpp li nga xam ne yonent noonu la gënee si nit ñi wàcc bi ñu wàcc alxuraan ci moom moo tax mu gën ñëpp Seydina Jibril alayhi salaam indi bi mu indi wax yu jox ko yonente saa salaam moo tax mu nekk malaayka bi gën ci malaayka yi mooy sang malaayka yépp guddi leelatu xadr bés bu mu gën maanaam gën bu mu gën ci guddi yi mooy ci la alxuraanu karim wàcc kon téereb suñu borom bi subhaanahu wa taala alxuraanul karim Euh, rabil xulóob la mooy loolu le xol yi maanaam day naatal xol lool li boo ko déggee mooy su noor bi ñëwee moom ne printemps printemps mais amul ci ci amul baat bu mu xaw a mooy loolu daal printemps nga xam ne euh, àll bi day naata naata naat ba macha allah. dund noonu mu mel noonu la alxuraan di def rabiul xalb la day lolli xol kuy dundal su fekkee nit kee ngi jàng alxuraan day barkeel dundam ba pare dina ko seede ëllëg ci kanam yàlla alxuraanul fajr kaana masuuda dana ko seede ci kanam yàlla daan diw ab jàngat alxuraan la te alxuraan lañu wax rek alxuraan lañu wax aaya mi lu mu ndaw ndaw bu dee ci alxuraan la da ci bokk kon mat nay bëri yoon wi yoonu wërsëg la yoon wu barkeel la am-am eh, yoon woo xam ne dana yombal am-am dana ko yaatal dana ko bëril dana ko ful muy lan inna allaha huwa razaax zul quwwatil matin loolu ngay farala def waxtu julu nek inna allah huwa razzaq zul hut al matin inna allah huwa razzaq zul hut al matin periwul lu gatal lo xamantene soko don def waxtu wo def boo julle 27 moy ñaar fuk ak juróom ñaar suñu borom dana la may wërse bu bëre bëre bëre bëre bëre bëree mooy risxan waasxan la yaqtasib wërsëg wu yaatu woo xam ne kenn du mën a xisaab nu mu toll su fekkee yaa ngi def inna allaha huwa razaq zul xuwatil matin inna allaha huwa razaq zul xuwatil matin aaya baa ngi nekk suratul zariyat verset 58 verset 58 huit foofu la nekk ci suratul zariyat moom zariyat rek boo koy def heure boo xëyee suba soo julee suba nga koy jàng moom tam ci sexatu risque la dafay yaatal wërsëg li ñu joxe yëpp li muy baax baax a baax yëpp balaa nit ki xam njariñam dëgg da koy faral a def te it mu gëm ko gëm gu mu am yaqin ndax tudd yàlla da lay may yaqin day tax nga am kóolute sa borom day tax nga am kóolute sa borom tudd yàlla ذلك صلاة القرآن dana leeral xol dana yokku ngëm dana rafetal jikko dana barkeelal dund dana taxa mucc dana la may xéewal dana la may wërsëg dana la aar dana la sàmm yoon wi ñu indi nag leeral nañ ko ba macha allah amatul lenn loo xamante ne ni tey koy déglu dina mën ne euh, dese na leer ci noppam kon ni ko indee rek mooy waxtu woo xam ne julli nga julli farata bu nekk nga toog nga jàng inna allaha huwa razaq zul quwwatil matin fas yéene koo jaamoo yàlla fas yéene koo def fajuk aajo fas yéene koo sàkkoo wërsëg kii def ay ñaan balaa moo xam njariñam dëgg-dëgg bu yëngatu ndax alxarakatu baraka bu fekkee yaa ngi yëngatu si ngay amee barke waxuñu nit ki nga xam ne rek day xëy mu def ko rek toog di xaar déedéet boobaa loolu yàlla gërëmu ko yàlla dafa bëgg ñëpp di yëngatu bu kenn bañ a def dara waaw bu kenn bañ def dara képp ku xëy rek ci doomu aadama yi na def dara nga yaxamtu wala nga jàng nga liggéey ci métier bul xeeb dara yanu liggéey la yooyu yëpp li bon daal mooy ki nga xam ne moom day xëy ñu ne li baax na rek mu def ko toog di xaar waaw boobaa euh, digaluñ ko moom loolu liñ ko digal mooy euh, na liggéey ba pare mu ñaan yàlla barkeel li muy liggéey ndax saaba yi bi ñu mu xaajiroon yi bi ñu ñëwee ci bi ñu ñëwee ansaar euh, ñëw gàddaay jóge màkk ñëw madina bi ñuy indaal dara kenn ku nekk sa bopp sa jëmm rek bi ngeen bi ñu ñëwee dañu ñëw daal ne ñañ fekk si ñaa daal leen dara ne leen léegi nag comme ñëw ngeen dañuy bokk ak yéen suñu alal dañuy xaaj alal séddoo ko ak yéen ku ci am sax ay ñaari soxna day bëgg jël benn soxna mi jox morom ji ngir rek ja dimbalante goo xam ne ak jubóo ak bëggante goo xam ne bëggante nañu ko seen biir bi ñu leen waxee loolu ñoomu mu xaajuroo na ñu ne leen déedéet ñun daal comme ñëw nañ wañ leen yoonu marché bi rek bu ñu xëyee ñu tam ñu uuti seen biir ñooñu nga xamante ne dañoo gàddaay ñëw Madina am na si ñoo xam ne dem nañ ba mujj buñ doon wax milliardaire nekk nañ ci nekk ay milliardaire kon nit bu fekkee mu ngi liggéey rek dina mën a am lépp ci àdduna dina mën a am dund bu barkeel dund bu teey du ñaan kenn du am aajo dis ko kenn lépp lu mu bëgg rek dina ko mën a fajal boppam waaye loolu balaa nga ko mën day fekk nga liggéey ñaan yi dafa jox nag day tax su fekkee yaa ngi liggéey liggéey bi barkeel am am bi yomb su dee da ngay commerce commerce nga gaaw am am njarate li ngay jaay marchandise bi gaaw bëri ful su dee métier nga yor métier bu dee tax ñu xam la ci te koo ak xolum sedd su dee da ngay def ak lu mu mën doon ci xeetu liggéey yi am yor ko di def lii dana tax loola nga am ci la nga bëgg incha allah su dee seen loxo dafa bënn lu ñu yor mu dem bu koy def incha allah suñu borom dana leen nga xam ne dañu Euh, ñaax gàtt wërsëg ba nga xam ne bu leen nit diggoon sax du leen jox su ko dee def dana dem ba ku leen dig jox leen wala balaa nga leen dig sax ñoom amal seen bopp incha allah kon lii lañ indi tey di leen wax di leen dox dig daje ci yeneen jotaay di leen wax waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu.